couvre-feu transport bi ministre ah, bi lim jël ni ñu koy dundee mooy comme instant bi ni ko ñëpp di dundee waaw ñun dawal ko di jakartaay maan yi ni ko ñëpp di dunde lañ koy dunde fépp la méttee mais nag comme la. ñun garaawuluñ ko quoi ñun garaawul ndax feebar bi ni bu fekkee feebar bi ni moytoo tax ku nekk jàmm nga bëgg waaw jàmm daal moon tax a jóg. ndogal loolu jëfe nañ ko jëfe nañ ko de jëfe nañ ko waaye metti na ci ñun de ndax ñun ñi bu dee ñun heure boobu moo nekkoon sunu heure bu ñun heure boobu ci leen daal liggéey ndax heure boobu moo nekk sunu heure xam nga mais xaw naa metti si ñun met na si ñun daal. nit ñi am ci koom de mi ngi wàññeeku moom mi ngi wàññeeku daanan am lu ëpp daanan am lépp loolu moom waaw. non ñun moom jërë joxuñu dara dañ koy dégg rek comme ni ko ñun koy déggee nii rek mais ñun moom ñëwaguñ si ñun wax nu dara dégguñ dara en tout cas ñu ngi jëfe ndigal li na si ñun waaye ñu ngi koy jëfe rek. nit ku nekk boppam nga am ku nekk sa bopp ngam am mesure bi mënut a weesu ma dem jënd na affaire bi sax waaw pharmacie koy jaay waaw pharmacie moo koy jaay. lii leen wax ñu jënd ko ak yeneen ak yeneen ay masque am na ni ñu war am yëpp waaw kon ñoo ngi jël suñuy matuwaay waaw affaire bi nag métti na mais danañ ko jéem a tenir waaw mais nag bu ñu fi jaaroon jox jakartaay dara pour ñu mën a dallu jee dallu ji moon dàqal waaw ba fii fii moom dara amugu fi waxuñ fi dara en tout cas daal li jotee heure bi jotee ñu dàq na ñu dem mais joxuñ nu fi dara bàyyiwuñ nu fi dara dégg naa sax ñu ne instant bi kenn nit la jakartaay di yeb mooy xam nga loolu mooy dem leen ñibbi. waaw ñu ne couvre-feu bi ñu ko dunde moo ñu ko ñëpp dundee rek waaye nag fas yéene wey ndigal ak di ñaax mbooloo mi yëpp nag ñu wéy ci ndigal te it xam li ko waral rek li ko waral loo xam si yëmul ci yow dong da wër adduna bi yëpp kon kenn ku ne boo xoolee rek xam ne situation oblige li ko waral rek moo ko waral waaye léemu jeex ñu gën a tuub rek gën a jéggulu suñu borom gën koo ñaan mu tegg yi ci adduna bi yëpp te xam ne loolu waaye kenn defu ko ngir sa bopp ndax ñoom it ñëpp nga ciy loru ñëpp ci ñàkk seen xaalis ñëpp ci ñàkk seen temps ñu gise ko noonu rek fas yéene wéy dëggal def ko ni ko bëggee rek li ñu wàññeeku am ci wàllu xaalis mu ngi ko wàññeeku na waaye nag suñu xoolee ñi xam si ñoon ëppoon xaalis am ëpp de lépp li ñuy xëy di perte ci loo xam si amoon nañ ko buñ xoolee ci loolu rek ñun li ñuy muñ ci lii akus néew ko mën a muñ ndax àdduna moo tëddee noonu. waaw li may laasee autorité yi ak suñu mbokk yi xam si ñoom ñoo war a jëfe yooyu suñ xoolee lii dëgg la métti na muy transport mu lu mu ci mën di doon waaw waaye loo xam si nag dafa wàcc ci àdduna bi yëpp loolu nag wax dëgg yàlla kenn mun ci dara kenn mun ci dara ak loo ci mën a perte lu mu bëri bëri rek muñ dong moo ñu ca war ci ñaanal ak jégalu ko. ñu jéem a fegu rek balay leen di ñëw suñu kaw ndax ñun te ndax ñun li ñuy li wax ñu koy waajal ñoo tane ñuy xëy di suuli wax dëgg yàlla ndax ñoom ña ngay perte xaalis en même temps mais teewul ñuy xëy di suul ñun nag yàlla bu yegg foofu kon na ñun ñu jéem a jéem a fegu ba ñu yegg foofu ndax ñu mën a mucc ci yooyu. te xam na li wax di son bi nga xam mooy suñu président li mu jël jàpp naa loolu lépp ñun suñu aaraange la ndax Macky Sall moom su soñoon aar doomu réew yëpp ndax kenn ku ne soo soñoon sa doomu réew doo am gàllankoor kon li ñu def nii mi nga xam ne dañuy xëy 6 mate du matin di wàcc 8 loolu yaakaar naa ñun ñëpp suñu arrangement la ndax kenn ku ne soo soñoon soo amul gu yaram doo liggéey kenn ku ne soo amul wér gi yaram doo liggéey kon li nga xamante mooy li nga xam ne moom lañ si président digle su ma sonal ñu jëm koo mate suñ xëyee fajar 8 ñu wàcc bañ a sonal gendarmerie bañ a sonal police ndax loolu mooy li nga xamante ni mooy suñ kaaraange kii ñu kaaraange moom yaakaar naa fekk loolu la bëgg def nañ leen si fekk si gën leen a jàppale si loolu